yee gars yi coachu Maroc bi dañ ko nar a suspendre quatre matchs dont deux avec sursis nag lan kàddu yi nga xam ne joro na ko génnee kookee di Memba di joueur congolais bi xam nga génnoon naa ne doon leeral ne affaire de racisme mu ngi ci maa ngi ciy ñëw nan la naka la salaam gars yi béggee naa leen nuyu ku ci nekk seen tur ak seen sant maa ngi fii ci restaurant au bonheur restaurant sénégalais nekk fii ci Côte d'Ivoire Yamoussoukro vraiment ñu ñuy jox ñu lekk ba suur xam naa ne sekkee nekk jawee ni moom buñ fi nekkoon moom duñ fi jut fi la nuy fanaan yendu fi def fi lépp kon nag bépp képp kuy sénégalais te bëgg a lekk nekk Yamoussoukro ñëwal fii ci Au Bonheur moo xam nga nekk Abidjan ñëwal jar na ko ñëw ci coach Maroc boobee nga xam ne dañ ko nar a suspendre lu tolloog quatre match ñu naan ko walit reg-reg yi mu doon match yoo xam ne nii nar na ko bañ a toog deux nag avec sursis li waral loolu mooy que kàddu yi nga xam ne jotoon na ko génnee kooku di Memba ñi ñu ngi naan kàddu yu racisme la lu ne mu ngi jot a génn naa cee waxtaan ak sama public ak yooyu waaye kooku di ba ne loolu il n'ose pas génnee ko ci gémmañam fii ñëpp di ko dégg te it yaakaarul woon ne coachu Maroc boobee dina génne lu mel noonu ci kàddoom surtout ni ñu nekkee fii ci Afrique en pleine compétition africaine mu doon loo xam ne naqari na ko mais day bàyyi lépp ak yàlla mu ngi noonee gars ngeen xamee ba ngeen bindal ma ko ci commentaire ci suspension boobee waa bin sport ñoo génn di ko leeral ngeen xamee ko noonu gaay looloo nekkoon xibaar bi nga xam ne jot naa jóg ci coupe d'Afrique bi jëm ci coach boobe ak kooke di Mbemba jàmm ci yéen gars yi ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous le drapeau de l'air au bout du trou. So

yaa gagné de Sarr yaa gagné. ok. non mu ngi nii Seex boo ko si Seex boo ko si génnal. Yes! C'est bon les gars. jàmbaar dugalal photo bi. dugalal photo bi est-ce que dama ko dugal. Eh, on est les vainqueurs waay. waaw gerte gi mel ni nos prix waay. nos récompenses lan teel a ñëw waaw. Eh, eh, bu bu dugal si yaxu de bu bu tàggee si yaxu de dafa perte. waaw ah, bàyyi la mu dugg bàyyi la mu dugg. xaaral ah, xaaral.

Iso jaajëf Sadio Mané Sadio ñanjo Sadio Sadio ñanjo Mané Mané Mané Al Nassr abi s'il te plaît Mais Pape, Pape, viens me

jàmbaar dugalal photo bi dugalal photo waaw ñu kese Instagram lañ ko dugal on est le vainqueur waay waaw gaar gay mel ni no prix waay do rek ko waay dañ teel a ñëw waaw eh eh bu dugal Cheikhou de bu tàggee Cheikhou de dafa perte bàyyi la mu dugg bàyyi la mu dugg xaaral xaaral ah. 2010. déggu ma 2010. léegi kon benn crépin la ñuy njëkk a dégg à part avant yow. <laughs> jàpp te fu mu yónnee mu invitation indi oto non non sax jàng moom indi fii mais Amadou moo waroon mais dafa dafa dafa dafa dafa naan tànn mu ngi ñëw waaw waaw maa ngi xool xam xaal situation bi ba xam comment dirais-je damay dem fële ou pas wala ba xam damay dem fële bu may demul fële ma def la suñu avant rek